li ma bëggoon wax rek mooy damay euh, wax ne ñàkk nañ nit ku mag di jaale président de la république parce que xam naa fi nga xam ne foofu la tolloon seeni relation moom ak Alioune Badara Cissé li ma ci xam sax bariwul xam naa ne ñoom luñ ko luñ ci waxul nit ñi duñu ko xam mais xam naa ne xaritam la woon compagnon am la woon te tey ñi xam nañ ne ñàkk nañ koo xamante ne nii. Euh, ñi ko xam xam nañ ne fu àdduna sa tool bu amee xalaatam dina ko wax nga d'accord ci ak moom ak nga bañ ci d'accord ak moom nit la koo xamante ni xalaatam fu mu ko fekk foofu la koy wax te loolu il faut nga am courage pour mën a nekk nit ku mel noonu il faut nga am ay valeur pour mën a nekk nit ku mel noonu yàlla def na bi ñuy déposer récépissé APR bokk naa ci ñetti nit ñi àndoon ak moom ñu déposer le récépissé de l'APR mu nekkoon le coordonnateur de l'APR coordonnateur national man ma nekkoon le coordonnateur des jeunes donc on a eu à avoir un compagnonnage boo xamante ne nii euh, dañuy ñaan rek yàlla xaare ko àjjana te lépp lu mu doon def ci suuf yàlla na ko rëccu